honorable député, euh, Monsieur le ministre, je crois que mes prédécesseurs ont tenté de vous qualifier et nous partageons avec eux toutes ces qualifications. Donc vous êtes un homme bien, euh, comme je le disais à quelqu'un, mais nous, nous pensons que vous devez même pouvoir travailler au-delà de ce gouvernement-là, avec tous les gouvernements qui viendront dans le futur. Parce que vous avez les compétences et vous l'avez largement démontré monsieur le ministre je crois que je l'ai dit que euh, vous ko dit, je initiative comme déconcentrer les services dañ accompagner avec les moyens mais gis déconcentrer les services mais témoins, moyens les collectivités locales moyens ñu mën a jëmmal seen liggéey parce que moyens yëpp dañ ko concentré au niveau central et ñuy ñaan vraiment bu ñu mënee yokkal les collectivités territoriales aussi pour que nous ñu am ay moyens conséquents ñu mën dérouler euh, li ñu leen sas leneen li mooy euh, monsieur le ministre wax naa ko suñu département le département de Goudomp vraiment euh, amuñu benn mbedd bu baax nous ñaan wax accompagner le département de Goudon parce que beaucoup de ci département je ne vous euh, euh, informe bien bokk na ci département yi gën a ndóol ci mim réew bu fekkente ne sax doonul département bu donc jàpp département yu mel noonu wax war bénéficier d'un traitement un peu spécial donc pour ñu jàppale leen euh, ci mbedd leneen li mooy wax naa ko waxat la boucle du PACAO. jàpp nañ ne di euh, dégg un peu partout boucle de boucle de ñun ñuy laaj aussi suñu boucle du Pakao kañ ngeen ci taxaw monsieur le am nañu ay communes yoo xam ni zéro électricité lu mel ni euh, commune de Mangarungu commune de Kolibantan ay ñoom ñaa ñaanga Simbandi Balante donte Simbandi am na électricité mais yeneen dëkk yu wër Simbandi yëpp amuñu électricité bëggoon nañu aussi ngeen fexe euh, ngeen indi fa électricité parce que nag li doy waar ci loolu mooy commune yi ëpp ci commune yooyu yëpp rotation bi daf leen traversé donc jàpp nañ ne euh, loolu aussi du équité euh, leneen loo xam ni waxoon naa ko monsieur le ministre mooy la modernisation programme modernisation des cités religieuses ñun dans le département de Goudomp gisaguñ ci suñu bopp te bu ñu parcourir documents yi ngeen ñu jox par rapport à ce programme là aussi gis nañ ne ba tey jëlu leen en compte ñun suñu cité religieuse sampoon naa fi laaj ba tey que indiwu ci tontu est-ce que ñun nous de la Casamance bokkuñu ci cité religieuse yi ñu war a valoriser yi ñu moderniser donc bëggoon nañu vraiment ngeen boole loolu ci ci programme euh, leneen li monsieur le ministre mooy bu ñu ne Casamance suñu xel dem ci euh, àll bi suñuy suñuy fruits dañuy tout le temps parce que mbedd yu baax amul pour ñu gagner ko leneen li mooy suñu ñu fa ay ay petite industrie yoo xam ne ko transformer ñu valoriser am valeur ajoutée au niveau du département leneen li il faut que nous désenclaver, Monsieur le ministre, le département de Goudombe par la construction d'un pont bi relier le département de la capitale de sa capitale régionale waxoon naa département de Goudombe un département de xam Le fleuve bi donc département Moko, moo les autres départements de la région suis Sédhiou capitale bi mais ak Bunkini. wax chaque fois que nous avons un pont relier le département de avec le département euh, de Sédiou, donc la capitale départementale par Bambali Diatokunda, pourquoi pas l'outil ci moi, nag mooy euh, mbirum je crois que le département de Goudom regorge de potentialité waxoon nañ ko fii ay football ay athlètes parce que man mi di wax ak yéen au niveau de l'inspection euh, de Goudom. donc nous souhaitons sport bi ci niveau xale yi loolu aussi bëggoon nañu ngeen jàppale